asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ Cheikh Abdou ñu ngi lay siyaara di am mbégte ci teew giñ ñu fii ànd ak sama mbokk mbaax mi nga xam ni dama koy wax sama royteef nag da koy bañ nag waaye ndax ci taalibe lay yëngu ci lay xëy di ci gont day mel ni daa def sëñ Tuubaa mu di toll mu ci xëy di ci gont ni ko bàyyam defee woon rek kon nag sëñ Ibou itam maa ngi ñaan ci barki sëñ Tuubaa barki sëñ Mamadou Fall yàlla defal la gudd fan gu ànd ak wér sa yaakaar bañ a tas ci sëriñ bi yaakaar sëriñ bi bañ a tas ci yow Cheikh Abdou nag yow duñ la catu ndax tabaarakallaahu doom nga xarit nga sun naw la nga tëm ñu ngi lay ñaan ci barke Cheikh Mouhamadul Mamoun barke Cheikh Abdoul Xaadar ñi la Cheikh barke sëriñ Tuubaa barke sëñ sëñ Gaawaan yàlla defal la gudd fan gu ànd ak wér mbooloo mi ngi àndal yëpp te jëme leen ci suñu borom jëme leen ci sëñ Tuubaa yàlla bu kenn sut ndax taalibe ak euh, sëriñ moom siraatal mustaqim rek moo leen boole sëñ bi sañ naa jaar ci siraatal mustaqim yi taalibe bi topp ko ci bu taalibe bi demee ba gis sëñ bi teggi siraatal mustaqim sañ na ko wacc wuti beneen sëñ waaye su taalibe bi wàccee yoon itam sëñ bi sañu koo bax da ko war a ñoddi indiwaat ko ci yoon wi yow nag kon ci yaa ngi ci yoon wi say taalib yàlla bu ñu wàcc yoon wi mm. kon xam naa ni moom sa taalib moom du la baax ndax yaa ngi ci yoon wi moom jàngal nañ la yar nañ la te habit nga ba noppi di murid saadix te loolu rek mooy lu am solo wax ji nag am na lu ci feeñ tuuti ndax daa am lu suñu laa doxoon ci ci ci ci ci ci ci taalibe koo xam ne gën a woo ko lu may lenn muy Serigne Touba mu nangu ko bàyyi saw di woo sa bàyyi santam boo toogee ci kaw mu toog suuf sa lépp gënal ko léppam muy wett ko aw ñaqam di la ko jox mu wóor la ni wëccut ñaq woowee te bis dana ñëw euh, jëmm ju du wax ñaq way wax diw ma liggéey de ci bis sàngam jox ma diw neen nag boobaa dugaloo ko ci lu may fuy dolli yaakaaram xanaa di ko takkee soxna wala di ko jëndee oto yu rafet dee wute ko gën te yomal xiyaam ñaq wa ci foofu mooy wax nag ni diw ak diw ma jël diggoon warab sàngam kon nag yow jàpp naa ne yow fi nga dugal sama ñaq leer na nañ comme ni ko sëñ bi waxoon ci Touba Ca Kanam di laaj lu ñu xam di ko dugal fu ñu xam loolu la réew mi laaj loolu la sëñ bi bëgg lu leer kon nag wax ji du gudd daal ci gàttal daal damay sant di gërëm di ñaan rek ci barki sëñ Touba mbooloo mi fi teew ak xar yeeg yëpp saa borom dafa leen gudd fan ak yokk dafa leen ak mucc dafa leen ak jariñu tey ëllëg ci barki sëñ Touba xol bee sedd mënu sax ndax li ma doon wax sëñ bi na waaye daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ak tawféex barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah